internet yu sans limite ñu ngi leen di nuyu tey am nañ mbégte di dalal maître euh, Massokhna Kane jiite SOS consommateur euh, kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte ci ni ñu nangule bii les entretien exclusif jërëjëf maa ngi leen di fay euh, di leen sant ci invitation bi da ñu fekk ñu génn ci réunion bu ñu doon def benn groupe association de défense de consommateurs yoo xam ni yii juróomi association la ñu Euh, LCS mi ngi ci. Hmm. ligue euh, des consommateurs. Mojek mi ngi ci ASDIC. Hmm. Euh, ak SIF ak SOS consommateur. Hmm. ñuy échanger. di sottante xel ci euh, affaire aussi ak problème d'actualité accident bi amoon et tout ça. justement daf ñuy intéressé waral ba ñu seet si la ci yokkute bi ci accident bi nga tudd euh, gis nañu concertation yi également yéen ca waxoon ba tey am na yu ñu gis ni xëy na sur le marché jafe na ngir ñu appliquer ko mais laata yooyu yi ñu dab yëpp ci ay actualité bokk na ci Pape Alé Niang finalement mujj nañ ko bàyyi li ko jiitu wax nañ Cheikh Omar Diagne wax nañu Karim Xurum Xàkk ci yow gis-gis mooy. dañu jëm ci décrispation géopolitique bi lu raf lu baax la. waaw loolu euh, baax na. mais nañ ko yokk. mooy nañu bàyyi ñi nga xam ni jàppoon nañ leen pour des opinions ay délits d'opinion euh, nañ leen bàyyi parce que am na ñu wax lu gën a garaaw ñoom yi ñu wax te kenn jàpp leen donc loolu c'est une bonne nouvelle que ñu bàyyi leen parce que waruñu leen woon téye ci yu mel noonu déjà. donc euh, loolu des décryptation la et gëm naa ni kilifa yi euh, joué nañ ci rôle moo xam kilifa diine yi wala kilifa aada yi ak euh, peut-être président aussi dafa dégg. Hmm. appel yi ko nit ñi def. notamment journalistes yi ci seen dajaloo seeni association yi ñu bind ak yi ñu wax yépp defe naa président dafa boole loolu yépp moo tax mu def ñu def lii mu def. mu def li mu def tombeek accident bu doy waar ñu koy jooy 39 morts on a même parlé de 40 euh, tey bi ñu xëyee dégg nga coow li ak clameur bi ñenn ñi indexé ay oto yoo xam te ne depuis boobulee muy daw te wóor ñoo bokk ci circulation bi ñuy tudd chauffeur si euh, nguur gi daje woon démb conseil interministériel on parle de deux 22 23 mesures euh, yooyu yëpp ñëwaat ci table ji est-ce que ci sa gis-gis yiñ fi annoncé yëpp lu bees la finalement lan mooy jafe-jafe bi est-ce que dinañ dem ci appliqué waat mesure yu ñu jël yow noo koy jàngatee concrètement waaw euh, affaire accident bi loo ñun dañuy wax ni joolaa bu ndaw la rek parce que catastrophe la du hmm. accident catastrophe la parce que bu ñuy wax cent blessés ak quarante morts yu tegal euh, loolu ci ñaari oto loolu catastrophe mënu ko passé hmm. te li ko waral xam nañ ko ñu ngi wax pneu bu éclaté mais est-ce que pneu bu éclaté bi mooy cause principale bi parce que mën na am pneu bi li tax mu éclaté mën na am coupelle bu dagg la wala amortisseur bu yàqu wala yu mel noonu. moo tax oto yi dañ ko war a expertiser ñun sa fait plus de vingt ans SOS consommateur dafa wax ne accident bu amatee. Hmm. bu am dégâts corporels yu am importance yooyu nañu expertiser oto yi expertise après accident am nañu experts yu ko mat. pour hmm. ñu xam les vraies causes de l' accident. mais du benn témoin wala ñaar rek ñoo naan pneu bi la ñu dégg mu éclaté. justement ñu ne loolu mooy cause bi déedéet nañu expertiser tey xool organes yi loolu lañuy wax expertise post accident maanaam bu accident bi amee ba pare. Hmm. ñu expertiser ko comme ni ñu koy defee ci avion yi et tout ça donc loolu dana tax ñu gën a am njàngat ci cause yi. mais en tout cas. Hmm. Euh, oto yi accidenté gis nañ façon oto yan la euh, ay horaire la yoo xam ni dañ ko transformé. Euh, moo tax accident bi gën a metti euh, ay oto yu màgget la. Hmm. donc euh, président lam fa dem lu ñuy rafetlu la mu dem sur place massawu leen wax ne danañ leen jàppale mais bu ñu waxee rafetlu loolu ba pare aussi dañu wax ne dafa convoqué dès le lendemain. oui conseil interministériel loolu. Hmm. ci tàng tàng bi gaw ma ni dana régler problème bi. parce que loolu lañuy wax agir sous le coup de l'émotion maanaam euh, ci tàng-tàng bi euh, émotion bi tax ñu ne nañ convoqué mais gis ngeen mesures yi ñu fa jël. oui 22 mesures la vingt 22 mesures ñun bi ñu wooyee dañu dañu dem. parce que parce euh, que conseil bu ñu kii dans la précipitation yi alors que dañu waroon def état des lieux xool documents yi am ci affaire sécurité routière njàngat ko génne ko parce que. cause yi am ci accident yooyu yëpp nit ñi xam nañ ko bu yàgg. recensé nañ ko depuis ay ati at. gis nañ fi conseil interministériel bu fi amoon en 2017. oui en 2019 yu génnoon di commandement yi. en 2019 jël nañu ay recommandation wax euh, que année de la sécurité routière 2020 lay doon. lu nekk wax nañ ko wax nag bu paasee jëpp moo war a des. Hmm. problème bi mooy texte yi am na mais sanction yi war a am amul. contrôle yi war a am amul contrôle ak sanction am na ci responsable yi ñu ko wax. Hmm. contrôle ak sanction defe naa le directeur général de l'agence de sécurité routière. routière ANASER contrôle ak sanction loolu dafa war a am ak prévention évidemment maintenant. ñu jàpp ne état dafa ragal syndicaliste yi saa ñu yëkkatee seen kàddu. ñu dellu ginnaaw loolu aussi facteur blocan la ci mbir yi. ñun bi ñu ko jàngatee. quinze mesures yëpp affaire transport public de voyageurs la. quinze mesures yi 7 mesures yi ci des mooy ay mesures d'ordre général. Hmm. te mesures yooyu wax nañ ci ay pneu. Euh, kenn dootu fi dugal pneu. mais pneu yi ñu ngi koy continuer di ko jaay. pneu occasion yi. pneu d'occasion ñaata stock moo am actuellement au Sénégal xëy na ay ay centaines de milliers am na fi yoo xam ni nit ñi mën nañ continuer di dem di ko jënd mois j'aurais compris ñu ne. Hmm. non seulement pneu d'occasion dootu fi dugg. mais stock bi fi nekk dañ leen di ramasser indemniser ñi nga xam ni ñoo ko. Euh, importé woon légalement ñu indemniser leen mais ramasser pneu yooyu détruire leen mu wóor ni kenn dootu ko utiliser moi j'aurais compris une mesure comme ça mais mesure yi ñu jël. Hmm. dégguloo ñu wax ci permis à point parce que permis à point transporteurs yi dañ koy bañ. <laughs> te permis à point bañ ko war a def Sénégal ba ñu jëlee yi yàgg na ba léegi ñemewuñ ko appliquer pourquoi. lu tax parce que dafa am syndicaliste yoo xam ni. dañu bañ ne loolu du fi am donc euh, faiblesse dafa am au niveau de euh, kii amul ay aggravation peine yi peine yeeg contrevention yeeg yooyu parce que bu ñu la waxee ay contravention ay 3000 ak ay 6000 loolu dissuadéwul kenn mais bu ñu ne woon contrevention ku def demi tour sur route hmm. wala takkuloo ceinture wala kii wala ngay téléphoner au volant c'est vingt cinq mille wala cinquante mille bu ku ko fay benn yoon dootu ko ñaareel donc il faut ñu aggraver sanction yi loolu ñun dañu gëm ni ci kii la hmm. wax nañ fi aussi clause bonus malus ci assurance assurance da daan am clause bonus malus hmm. boo xam ne bii euh, bu fekkee da nga toog at mi defoo accident da ngay am ristourne prime d' assurance ba nga fayoon dafa am delloo mu nekk bonus bu fekkee da nga def accident ñu defal la benn augmentation de tarif loolu dafa massa am ci tarif hmm. mais amatul bonus malis amatul barémisation gis nañ ko aussi ci indemnité yi ñun ça fait plus de trente ans ñuy xeex barémisation bi am ci code ciment parce que da ngay gis nit koo xam ne kii dafay am incapacité blessé ci accident parce que blessé kuy seet sax di moo gën a garaaw nit ku dee parce que ku dee ñàkk nga sa bakkan euh, dootoo am coono mais blessé ba nekk grabataire nekk incapacité 70 pour cent wala 80 pour cent ñu lay fay ay 2 millions ay quelques yoo xam ni euh, njëgu par chogu oto sax moo gën a cher li ñuy indemniser kooku loolu musiba. 2 millions la ñu annoncé loolu musiba la te euh, ci ñi nga xam ñoo signé code ciment bi rek. Hmm. dëkk yooyu rek la la la applicable mais dëkk tubaab yi doo fa dégg loolu te barème euh, d' mën na nekk à titre indicatif ñu loolu lañu ñu waxoon xam ne euh, juge yi mën nañ ci sukkandiku inspiré wu ci pour di allouer ay dommages intérêts mais le principe de de de réparation intégrale. Hmm. nit bu amee gaañu gaañu oto sax. bu bu yàqulee da nga ko war a in da ko war a indemniser de façon intégrale waxantuma la ak nit ay cëru nit xam ni bëtu nit amul njëg ah loxo nit euh, bu buñ la nee yow musicien nga sa loxo ñàkk nga sa loxo wala euh, kii nga euh, chirurgien nga ñàkk nga benn loxo xam ni dootoo mën a loolu incapacité cent pour cent la hmm. yooyu yëpp baramisation bi yàq na ko état bi daf ci war a jóg mais en tout cas mesures yi ñu jël ñu hmm. gëmuñu ne mesures yooyu ni mu mel dina mën a régler problème bi loin de. du ko mën a régler gëmuñu ko. loolu moo sabab le fait que yéen teewu leen ci concertation yi. xëy na bu ngeen demoon lii nga fi jukki noonu bàyyi woon ko ci table ju doon gën. xam nga précipitation mënuñ ci régler dara concertation yoo xam ni dañ ni dafa waroon commencer 16h commencer 19h. xëy na wax nañ ba une heure du matin wala deux heures du matin ñoom ñu ñëw ak seeni recommandation parce que boo xoolee recommandation yu ci bari amoon na déjà. mais nañu génne recommandation yi xool Euh, interdiction de véhicules ñuy daw de cinq heures du matin à. loolu amoon na ci. camion yi maintenant ci transport public de voyageurs la ñu wax. Hmm. a créer benn structure boo xam ne bii day day surveiller day assurer contrôle application code de la route. oui application code de est-ce que jar nañu créer benn structure autonome. boo xam ne bi agence lay doon boo xam ne ça va coûter de l'argent et tout ça yooyu yëpp c'est des mesures yoo xam ni. Hmm. Euh, pour ñun euh, mënul am kii centre de contrôle yi. justement ñuy wax ne léegi dakaar xam nga Dakar rek finalement na ñëpp ñëw Dakar waay. na ñëpp ñëw Dakar loolu c'est pas gis nga syndicaliste yi wax ne loolu mënul nekk waay. mënul nekk li ñu war a def mooy euh, construire ay centre ci région yi parce que loolu waxoon nañ ko ay at a ngi nii taxi yi am na mais au moins ñu xool ñu jël ay zone maanaam du région yépp ñoo am oto yu bare. ñu jël lu mat ñaar wala ñetti région def fa benn pôle def fa benn centre pour commencer. parce que xëy na centre yooyu 100000 véhicules la ñu am alors que Dakar 600000 véhicules Kaolack 300000 véhicules Saint-Louis 100000 véhicules ainsi de suite donc en fonction de l' importance du parc automobile de la région ñu xool ndax dañ fa war a créer benn centre mais centre yooyu dañ ko war a créer mais en attendant contrôle physique bi ñuy def. Hmm. dañ ko war def mais centre yooyu waxuñu ci délai combien temps lañ koy def dañ ne rek. Euh, nañu euh, dans les meilleurs délais la ñu wax la ñuy def centre yooyu dans les meilleurs donc yu mel noonu mesure yu mel noonu euh, agrément de transport yi ñu réviser waat conditions yi ñu euh, euh, kii structure de santé âge minimum pour mm. permis yooyu mm. dématérialisation des paiements des amendes loolu loolu lu baax la ñoom góor ma wax nañ ko te loolu aussi dana xeex ger waaw dana xeex guerre bi mm. loolu am na importance donc mesures yi vraiment non seulement des na mais dañu war a continuer waxtaan mais concertation benn après-midi jël ay mesures yoo xam ni 22 mesures la alors que y a peut-être 40 euh, mesures qui dorment dans les tiroirs yoo xam ni kenn appliqué wu ko am na ay loi yoo xam ni kenn appliqué wu ko code de la route kenn appliqué wu ko permis à point amul parce que ñemewuñ ko def alors que taxi am na donc yooyu mooy régler problème bi mais euh, affaire accident yi moom bu buñ ci dëggantaan du hmm. jeex déjà tey xaw ma dégg déjà am na beneen accident boo xam ne bii mortel la. Hmm. donc yooyu loolu la ñu mën a wax ci affaire accident. d' accord loolu ñu fekk si leneen loo xam te ne également dañu xëy gis ko yokkute yi gasoil essence courant euh, ci jamono joo xam te ne nguur gi mu ngi woon ci subvention ñu doon wax ni du ko continuer FMI yuuxu fële on parle de cent trente trois milliards yoo xamante ne xëy na FMI yëkkati na ko teg ko ci table ji euh, yooyu yëpp boo ñu koy jàngatal lan nga bëgg sénégalais bi lay déglu jamono ji comprendre. lan moo nekk ci ginnaaw aussi yooyu ak nu ñuy def bu mu dellu ginnaaw. dañu wax ni at mii di ñëw année sociale la ñu décrété. Eh. année sociale boo xam ne dafa commencé brutalement ci ay augmentation yu garaaw augmentation yi li tax mu garaaw mooy dafa touché li gën a am importance ci yi gën a am importance après dund ci nit ñi mooy courant d'abord courant ñu xëy yokk courant te respecté wuñu sax procédure bi. mooy. respecté wuñ ko te loolu buñ ci amee débat dinaa prouver que ni respecté ñu procédure bi ñu war a def pour mën a yokk tarifu courant yi. ah oui loolu mooy benn. dañ jékki-jékki rek décider ko am naa ay documents yu important yu ma jot maa ngi koy xool te gëm naa ni jaarul yoon parce que convoqué woon nañ ñu benn réunion euh, commission de régulation du secteur de l' électricité. Euh, de l'énergie sax la léegi parce que dañu yokk seen i pouvoir. Hmm. mais ña fa wax dëgg yàlla liggéey bi mënuñu koo def. koo ci bëgg a daajeel ngir loolu leer. kan nga ci bëgg dal man bu ma amoon débat contradictoire ak ñoom. loolu laa bëgg. ñoom mooy ministre du commerce mu ngi fii. moo xam ministre du commerce je dirais même de porte parole. Ah. parce que euh, Abdou Karim Fofana waaye liggéeyam porte parole du gouvernement moom la gën a euh, jox doole. Euh, ministre du commerce et de la consommation man gëm naa ni ñaar yooyu mënta ànd. Hmm. si on veut faire du bon travail en tant que ministre du commerce et de la consommation et des PME mënul ànd ak porte-parole du gouvernement boo xam ne bi temps yi dafa mel ni dañ nekk ci campagne wala ñuy waaj campagne xam ni fu ñu toll mi ngi euh, communiquer di tontu ci affaire en tant que porte-parole du du du du gouvernement. Hmm. donc ça mooy loolu. Hmm. ku ci mënti doon nag mën naa def ak moom débat. contradictoire parce que loolu mooy tax dëgg gi feeñ. sinon hmm. dañuy taxaw fee di wax. je prends l' exemple des subventions. oui yi waxuñu dëgg askan wi. Hmm. parce que dañ dañu bëgg a wàññi subvention yi. pour dugal ko ci yeneen. Hmm. activité et que bu ñu wàññ pour ñu wàññi subventions yi il faut ñu yokk courant yokk essence ak gasoil euh, essence. super bi ñu ko fi yokkee. Mm. yàggul newoon naa leen ci gasoil la ñu jëm dañ ko ñemeegul woon léegi nag jékki-jékki nañu brutalement yokk gasoil ak essence yokkaale courant ñu ne euh, actuellement li tax ñu yokk ko c'est parce que seen subvention yi dafa àgg à 583 milliards 583 milliards virgule 5 loolu la ñu wax ni 2022 loolu la ñu subventionné. Mm. keneen ni la non non 750 milliards la ki déjà ñoom ñu ngi juyoo ci seen chiffre hmm. entre ministre beeg porte parole beeg ñu ngi juyoo ñu ne dañu bëgg wàññi 258 milliards parce que bu ñu continuer woon noonu 2023 750 milliards lay doon au lieu de 583 milliards ñu ne ñoom dañu bëgg wàññi subvention yi de 258 milliards pour mën a rester à 325 milliards mm. ba pare xaalis boobu ñuy wàññi ñu dugal ko feneen mais feneen fu ñu koy dugal. fana waxuñu fan lañ koy dugal. Hmm. nañ ñu wax fan lañ koy dugal. xanaa du ceeb bi ñu wàññi ni wàññi nañ ko te ba léegi def na ceeb beeg diwlin jékki yooyu ñu ne wàññi nañ ko. ah parce que état bi dafa dafa renoncer à à des droits d'entrée et autres mbaa du loolu la bëgg a euh, récupérer moo tax ñu yokk courant bi yokk kii bi. Hmm. mais subvention boo nee man daan naa fay 583 milliards mais da nga koy prouver d'abord. ñun document preuve yooyu la ñu bëgg d'abord bala ñu wax ni ñoom projection yu ñu def. Hmm. deux deux mille vingt trois ils vont payer sept cent cinquante milliards pour ba a fay loolu parce que FMI Banque mondiale nee nañ leen nañu wàññi. justement moo tax bu ñu wàññee subvention yi foog ñu yokk njëg yi. Hmm. loolu raisonnement boobu ñun d'accorduñ njëg yi ñu yokk ñun d'accorduñ ci du courant bi. du essence bi du gasoil bi d'accord ñu ci yokk yooyu parce que mën nañu wuti xaalis feneen. d'autant plus que ak lu leen di delloo ginnaaw bu dee àndoo ci wax ne 2023 danañ am pétrole nangam nangam donc waroon nañ seet feneen mais yokk courant loolu lu garaaw la ci askan bi mais lu leen ci delloo ginnaaw dafa mel ni bi ñu ko yokk ak léegi coow jibul bal tàkkul. 2019 yokkoon nañ fi courant. te dañ ñu waxoon ne dañ ñu waxoon ba ñuy tëgg euh, plan yeesal. Hmm. xam ni ay centaines de milliards lañ ci def. plan yeesal ba ñu koy tëgg en 2015 dañu waxoon ñoom seen bopp ñu ne courant au Sénégal c'est l'un des plus chers au monde waxuñu ci Afrique mais monde bi courant yi gën a cher ci la courant au Sénégal bokkoon loolu la ñu waxoon en partant de ça ñu ne bu ñu tegee plan yeesal investir ci milliards yi ñu ci waroon investir hmm. ñun 2020 danañu jënd courant entre 60 et 80 francs le kilowatt loolu amul au contraire 2019 yokk nañ courant 10 pour cent tey léegi ñu bëgg a yokk courant entre 16 pour cent et deux pour cent loolu c'est trop askan wi antanuñ ko entreprise yi antanuñ ko ménage yi antanuñ nu ngeen di def. da di taxaw rek di constater. ñun d'accord ñu mais il faut que. population amul woote amul naka. Sénégal mooy boo nee population yi jóg leen pour ñu kaas dara kenn du jóg te état bi daf ko xam moo tax du ñu yëngatu li ñuy def. dañuy jëkki jékki def ko de façon illégale. moo ne day réew mi li fi organiser ci ay manifestations ngir ñàkk ànd gis nga rapport Cour des comptes bi société civile bi pour la première fois bon su fekkee mën nañ ko waxee noonu am taxawaay ci wàllu yi ba daanaka ñu bëri ñoo leen fekk si wéy bu ñu ko defoon ci courant bi du yokk courant bi danañ ko defee feneen mais dañu bett nit ñi. Hmm. nee naa leen mesure bi c'est brutal et c'est une surprise parce que kenn xaarul woon li ñu def ndax niñ ko defee jaaduwul. defuñu réunion ya ca war def mais nañ ñu jox ñun dañu demander ñu jox ñu les états financier hmm. yu Sénélec parce qu'ils doivent le publier les états financiers de Sénélec de trois dernières années parce que nee nañu Sénélec dafa def bénéfice. excellent ci trois mais nag ngay defee bénéfice ba pare. di yokk di yokk prix alors que yow waruloo sax def bénéfice da nga war a équilibrer say dépenses ak say charges parce que service public la loolu la ñu doon xaar defuñu ko nañu ko génneel askan wi ñu génn seen état financier yi parce que bala ngay yokk prix dañuy calculer euh, revue bi nga xam ne moom la CRSE war a def commission de régulation. commission boobu ñun gisuñu njëriñam wax dëgg yàlla. Hmm. suñu njëriñam parce que li leen état bi di wax loolu la ñuy dëggal état bi lu mu wax ñoom ñu dëggal ko ñun on a toujours dénoncé. la commission de régulation du secteur de l'électricité malgré que lu ñuy xewle bu ñu convoqué nañ dem. Hmm. mais depuis dix ans ñun gisuñu njariñam. en tout cas SOS consommateur wax na ko guddi wax na ko bëccëg commission boobu gisuñu njariñam parce que ña fa nekk li Sénélec bëgg ak li état bi bëgg ñoom la ñuy. kon lii delloo ginnaaw nguur gi mooy manifestation wàcc ci terrain bi kaas ko. ñun dañu xeex ko population yi bu ñu jógoon ni lii augmentation yi du am. Hmm. état bi dana seet yeneen pexe. parce que bu fekkee ni banque mondiale ñoo ko dicté. Hmm. ñu diminuer subvention mën nañ ko diminuer feneen mais bu ñu ko diminuer nañ wax fan nañ ko dugal trois cent euh, li diminution bi ñuy wax ni dina leen rapporter deux cent cinquante huit virgule deux milliards xam ni ci courant bi yokk bi dana leen rapporter presque cent milliards quatre vingt dix neuf point sept milliards euh, kii bi essence beeg kii bi cent cinquante huit milliards. total bi nekk deux cent cinquante huit milliards ñu ne loolu bu ñu ko yokkee ci courant bi ak euh, kii bi subvention yooyu mu leen di wàññil nañ ñu wax fan lañ koy dugal est-ce que dañ koy dugal ci njëgu ceeb bi wala njëgu diwlin bi wala njëgu fii mais essence ak courant. Mm. courant ñëpp xam nañ ni mu amee importance ci kër yi ak ci ci entreprise yi. xanaa kay jaadu nañu subventionné ñooñu mais essence bi aussi c'est la même chose parce que essence bi dañ ko surtaxé. essence depuis plus de vingt ans ñu ngi wax c'est surtaxé la commission nationale de régulation bi ñuy wax dañ lay wax tey cours mondiale moo tax te hmm. cours or cours mondial bu boo duggoon ci internet gis cours mondial temps yëpp day baissé day jékki-jékki def benn pic yéeg wàccaat waaw lu tax bu ñu doon appliquer vérité des prix hmm. du ñu wàññi njëgu essence bu cours mondiale wàññee ko mais l'essence c'est surtaxé c'est environ à 68 pour cent boo jëlee structure de prix bi. Oui. presque 68 pour cent yi euh, tax la ay taxes diverses la xam ni pétrole yi ñoom seen bopp bugguñu état bi yokk parce que du dem ci seen poche ci poche état lay dem waa surtaxe boobu ba pare ñu bëgg a yokkaat essence bi xam ni loolu ay taxes lay doon li ñuy yokk nii xaalis la bu ñuy récupérer mais mu jëm fan justement ndax dafa dañ ko mën a ci luñ jëm année électorale bi ñu jëm ak yooyu léegi ñuy wax ne dañuy campagne dañuy da nga naan ñii li ñuy wax yenu na maanaam mais bu ngeen organiser débat contradictoire justement bu boobaa yéen di ngeen askan wi dina xam fi dëgg gi féete hmm. donc ñun liñ leen di ñaan organiser leen ay débat contradictoire pas ay débat juróom-benn nit wala ay fukki nit xam ni ku wax dootoo tollanti ah, da ngeen di wut ñaari nit ñu jàkkaarloo mu am débat contradictoire ku wax dara génn firnde bi génn teg population yi mën a yow ak euh, le ministre porte-parole du gouvernement war nañoo mën a am débat bu ni mel ngir leeral ci à pàcc bi loolu moom. dinañ ko dinañ je à 200 cent. mu ngoog dinañ fexe incha allah avec tout le je suis prêt comme moom mooy porte-parole du gouvernement. justement moom il est horizontal. donc day laal fee dina laal fee laal fee laal fee c'est l'idéal c'est la personne idéale. Oui. monsieur le ministre je voudrais oui. bien avoir un débat contradictoire maa ngi la koy ñaan. boo euh, xam débat bu civilisé lay doon. mais débat bu objectif pour que askan wi. mën a xam bu fekkoon dañuy wax affaire làmb dama naan boo tegee sa ndënd jël jël naa ndënd bi daaneel naa ko dëkk naa la donc euh, avec tout le respect. am na solo alors euh, beneen pàcc bu ñuy bu ñuy jukki xëy na foofu la ñu jeexalee mooy également euh, ci actualité yi la bokk te yow it pool d' avocat bu Ousmane Sonko daanaka yow yaay seen yaay seen yaay seen kilifa gis nañu procureur ci réquisitoire bu mujj bi mu sàkku en tout cas ci doyen des juges ci dossier bi dox ci diggante Ousmane Sonko Sarr Adji ñu fexe en tout cas ci li ñu gis li ñu dégg mooy ni la mu gëm mooy nañ dem procès ngir leeral ko ña doon woote woo non lieu au regard des éléments yi ñu jotoon ñu bëri ci yéen sax dëggal ko jàpp ni ci dossier bi moom mënuñoo jaar fenn fudul yoon wa euh, bi nga ko déggee ak réquisitoire bi da nga jàpp ni euh, déception nga ci am wala noo koy apprécier déjà. bon man damay wax ni du wax ci dossier bi. Ah. parce que maa ngi ci biir wante. Hmm. olof njaay nee géwél bu reppe ci xare lu mu jiin xeeb ko ñii dañu repp hmm? parce que procureur dañ ko sant procureur ministre moo ko sant ministre dafa am ñu ko sant ñoom dañu bëgg jot li ñuy wax jot seen toroxte mooy ñu yóbbu euh, affaire bi procès parce que picc yi naaw team Sénégal sax xam nañ ni dossier boobu complot la c'est un coup yàlla def mu foire yàlla si Dieu qui s'en looloo tax mu foiré mais tout le monde sait que c'est un complot cette histoire là et c'est tellement grossier que doo dégg doo dégg des partenaires wax ceg yu mel noonu parce que ñoom ñëpp xam nañ léegi dëgg gi fi mu féete xam nañ ni affaire bi complot la bu bu échoué complot bu échoué lamentablement donc bu ñu demee procès seen toroxte lay doon ah oui ah seen toroxte lay doon te bu fekkee ni président ànd na ci hmm. ñi koy ñi koy ñi koy xelal dañ koy dugal faut qu'il fasse très attention ñu koy xelal di ko pousse ci affaire yooyu dañ koy dugal. dem nañ bay annoncer sax datant du 2 à 2 2 février. baax nañ dem kanam euh, suñu kanam la nekk nañ ñaan yàlla fekke ko te tal ko mais seen toroxte lay doon parce que gone gi euh, wax na waxati waxat. Sénégalais yëpp nee naa la picc yi naaw team Sénégal sax xam nañ fu dëgg fete. te la muy wax ni maa ngi dossier maa ngi lépp. mais oui mais c'est grossier. te yàllaa leen weer yàlla feeñal affaire yi. Hmm? yàlla moo feeñal affaire yi moo tax fexeel sa morom lu bon mar day tari day mujj këpp sa kaw te affaire bi dafa këpp seen kaw. te lii yëpp lan la woon mooy xañ ko ci liñ jëm. waaw mais loolu xam nga yàlla mooy dogal yàlla mooy dogal de yàlla rek moo fi nekk te mooy dogal te dinañ ko gis ci kanam incha allah. kon Ousmane Sonko amul dara lu ko tere 2024. ah du lii du lee. en tout cas daal ku rep daal na ko jéem éliminer ku rep. na nga ko jéem a éliminer de ces élections là man nag bu ma doon xelal président. dama koy wax ni ko. Hmm. na fexe na rafetal na fexe ba képp ku bugg a nekk candidat na la wax la Abdou Diouf waxoon. Hmm. jumaa jàngoo ku neex waaye nodd loolu compétition bu leer bu bu loyal bu civilisé xam ne sénégalais ñooy choisir parce que sénégalais yi ñooy choisir hmm. sénégalais ñooy choisir. sénégalais yi lu ñu noppi noppi ak lu ñu toog toog toog bu tànn jotee ñoom ñooy tànn. ndax jàpp nga ni bokk na ci ñu war a noddu moom yàlla leen yàlla leen a tànnaloo. waaw est-ce que jàpp nga ni bokk ci ñu war a noddu. kat yi moom président. ah man de ci sama gis-gis. Hmm. moom warta bokk. dafa war a organiser affaire yi mais moom warta bokk en tant que juriste et en tant que citoyen peut-être un petit juriste mais euh, xam nga boo déglu sax gaa gaa yi àndax moom. ñoom deuxième quinquennat la ñuy wax. am na ñuy wax troisième candidature ñii di wax deuxième quinquennat mais troisième mandat ñemewuñ ko wax duñ ko wax ñoom duñ ko wax dañ lay wax ay deuxième quinquennat wala ñu ne la ay troisième candidature. Ismaïla Madior Fall mi ci wax nag ba posture am gën a leer. Ah, barki Dembo Ndiaye. loo jàpp. xam nga li wolof di wax ku wax feeñ. moom ñëpp ne nañ tailleur la te dafa mel ni mi ngi mi ngi ñaw <laughs> dafa mel ni mi ngi mi ngi ñaw daal. c'est un éminent juriste mais xam nga mag mu tëdd jaaxaan euh, ni gis suma naaj bi <laughs> kenn mënu ci dara waaw mais moom xam na bu baax en son âme et conscience en son fort intérieur xam na ni euh, euh, deuxième quinquennat kenn du ko wax troisième candidature kenn waru ko wax ku mu neex nag. Hmm. nga ne man candidat yow mii bu la neexoon. nga dem ni man candidat la remplir say conditions dem euh, wuti say parrainage. Hmm. dem verser sa sa caution yu mel noonu xam ne conseil constitutionnel moom mooy arrêter liste candidature yi. boobaa bu ko neexee mu ne yow. remplir la âge bi wala euh, def nga ñaari mandat ba pare amatoo droit présenter parce que amatoo droit troisième mandat. ñu ngi lay gërëm maître. merci maa leen di sant bu baax.